Comme tu fais que da nga jël le point de départ les mm-hmm. conférences de presse il Y en a marre pourquoi mm-hmm. bien avant ils n'ont pas réagi Comme maintenant je demande une motion tu n'es pas là pour me répondre tu es là pour me donner, pour donner ton point de vue. Wow, wow, c'est comme si tu es en train de me répondre. Non, non, déedéet. C'est sur la base de mon argumentaire. Non, déedéet, déedéet, déedéet, déedéet. Non, non, xaaral man ma ñëw. yow boobu suñu xuloo da lay arrangé. parce que grager les bras ñu xuloo ñu. waaw waaw waaw xaaral ma ñëw rek. parce que damay développé di ñëw. xam nga SFIO laay jóge jaar pra Sénégal yegg si. dégg nga rek lay def waaw. donc SFIO la section française la section française de l'internationale ouvrière section sénégalaise SFIO waaw bu boy di xeex tey SFIO moo tax moo tax xam nga dama ne suba damay wax ci SFIO mais kii xamul fan laa bugg dem mooy gis nga la liberté des sénégalais sénégalais ah, si seen ADN la nekk waaw c'est vrai c'est vrai. xam nga xam nga damay junju parce que man sama les comiques samay chronique nekk ma fii di yuuxu ak di non sama chronique dama koy segmenté. non non. <laughs> am na fi chronique ba saaga. ah ba pare daal nañ ma jël si. mais xoolal xool teg ci biir xool nañ ma jël si. ay chronique. chronique ah, ah, day. chronique day tay chronique day sedd chronique day am fil conducteur du bind dañu du wax du ay affaire yooyu donc ñu la wax ni équipe yooyu laa jógee waat seetaanoo nañ ma jël si waaw nañ ma jël si nañ ma jël donc ma ne ma ne <laughs> ma ne ma ne suba ku bëgg dégg xam-xam incha allah xam-xam waaw déglu rek ku bëgg dégg xam-xam treize heures na nga connecté wu. scotch direct xam nga wax naa. mais publicité nii de pour wax naa samedi. wax naa wax naa samedi. ba yaram yi di daw. te loolu du ma maa ko wax booy Russie yi ñoo ko wax. dëgg la si baax. suba laay wax ba nit ñi naaw. wallaahi parce foo may jóge mooy sori. dégg nga pour expliquer aux Sénégalais lu tax ñun liberté nekk suñu ADN. ma yokk si. ni la femme sénégalaise mo ñëk voté la femme française deug la mhm. la le droit de vote suñu suñu yaay suñu maam nous ñoo njëkk voté mhm. que les femmes françaises elles n'avaient pas ñom en son temps ñun rawé nañ plus de 50 ans de vote la femme française oh, dégg di baax modèles ma aussi. si mané euh ndox soo root kañ lay du fessé mhm. voilà mhm. boo posé buñu buñu bah hmm, en même temps que Imam Ndaw mhm. nga ñu la mais yow nit buy wulis ko te xamoo lu muy wulis dégg nga dégguma bah bambara la dégg hein da ngay bàyyi am ay succession de faits parce que dans les Japonais, c'est des cas isolés. Mais bien demain, de 1, 2, 3, de même double Sénégalais, mm -hmm. et bien Sénégalais. Il y a eu beaucoup de Sénégalais qui mm -hmm. ont été en hibernation. Parce que tu as dit Sénégalais. Parce que, avant les Sénégalais, tu es Japonais. Mm -hmm. Tu sais que tu il faut que tu aies état de grâce. Mm -hmm. Même si tu fais que Oscar Sierra, tu es un homme. ay loolu amul. dégg nga du baax état de grâce dafa am nit ñi dañ lay bàyyi nga dawal joxe ay indication si fan nga bugg jëmale réew mi à partir de ce moment nag lañuy ñuy a xam ndax yow trajectoire bi nga jël. baax na wala baaxu donc pour man démb ñoo lànk ñu ngi woon ci conférence de presse Bougane Gueye Dany. oui wax ma dégg ñu ne.

Je may communiquer nii communication sama communication man man force de proposition à Ousmane Sonko eh. non non eh, eh, organisation de organisation de contribution pour Ousmane Sonko laa parce que. Ah fi ma bu ngeen ma bëggoon jëmee. amul njëriñ foo amul jëriñ do yow la wax ma bëgg def non wa accord d'accord accord mais au moins post CNRA yi dess <laughs> moo na ko jéro ci benn kenn du ma rey dañ lay jox auto jox la ay d'accord <laughs> ah, yaa ngi dégg kenn du yàqal damay rogo jeero. du waaye dama ne. Ah, non mais loolu du ma ne. boo ko forcé sax doo maa xaritootul ak yow. Ah. parce que jëmewu ma fenn <laughs> maa xaritootul ay sati Diop Fall yóbbuwu fenn lu ñu ma ay noon kii ak kii ay xarit kii bal perdu Hmm? nervi la man sama yoon nekk ñu mënul dara man na wàllu ñu dugg dégg nga ñu baax waaw kon man ak yow kii lañ xam ne ah, xanaa di ngeen ma bàyyi ma porté ma communication wala man su fekkee ni mais su fekkee ni fii léegi amul démocratie ngeen wax ko waaw léegi mu yaa yaanaa maar bu génne ñoo lànk génn ay nit yu noppi woon commencé génn man je m'en félicite. beneen ba mm. parce que quel que soit alpha gis nga la jonction des gens day am gis nga élection non b b du référendum bimouk moo ko gën référendum élection yi xam c'est les patriotes en face des républicains les patriotes en face des républicains xam nga lan patriote patriote on peut aimer son pays et mal l'aimer on peut aimer son pays et mal l'aimer. Mais le républicain, il est beaucoup plus sensé. Comprends moi là. Je, je comprends. man vais définir Sénégal tey l'extrême droite et la gauche réfléchir le quand quand kan extrême droite à kan moi la gauche. tu as dit extrême droite. l'extrême droite. Ah, tu n'as pas parlé de droite mais extrême droite et la gauche chaque fois bu français à des consultations électorales importantes suñu nous ba il y a la montée de l'extrême droite C'est une union sacrée des populations des gens tout à fait ça dépasse même le cadre politique tout à fait ngay dem ba équipe nationale bu France des déclarations mm-hmm. pour arrêter mm-hmm. la mm-hmm. montée de l'extrême droite élection yi le référendum la. dëgg référendum bi xam nga lan pour arrêter. pour sauvegarder. les valeurs de notre république. oui parce que gis nga république amul lu ko gën a amul lu ko gën euh, euh, euh, garantir l'égalité mm. l'égalité entre les gens mm-hmm. xam égalité entre les gens c'est très important mm. Ils nga dans le monde texte la mhm. ñun suñu neexoon Sénégal mënoon na mënoon na am benn texte xam santé tu dois maintenant même pas le droit de vote mhm. mun na na le système américain Il y a les grands électeurs mhm. mais système boobu boo ko mais dafa am ay failles démocratiques c'est pas c'est pas maanaam ñu ne la yéen États-Unis

mais amul a un grand électeur et pourtant nous avons un grand électeur nous avons ah, le responsable le chef coutumier ou le tel chef religieux ou wala tel tel tel constitue ce qu'on appelle le collège des grands électeurs mhm. euh, Ousmane Sonko Ben voix lañ koy compter Diomaye benn voix nous koy compter man benn voix lañ may compter une mhm. mhm. ngi c'est c'est une forme de démocratie achevée dégg nga bu république moo la may xam nga lan xool leen ñuy booy taawul booy booy taawul lu ñu ne man Dakar laa juddoo man fii laa màggee aucun Dakarois n'a président la ah. république. parce que loolu république moo ko may. mooy nga am sañ-sañu jóge fu sori ñëw jàng ci université am fi liggéey wane fi ay compétences ba tey suba nga nekk président de la république. loolu république la république mhm. état nekkal fi ñëpp même examen bi buy am fongolim bi mooy am Diourbel mooy am Dakar mhm. y a pas deux poids deux mesures mhm. si même jour bi la ñuy def examen même heure yi aussi même heure yi même quantum horaire te souvent sax ñoom sax am na lu muy demee sax ñuy gën a mutilé parce que si condition yi jàngee déplacement yi kon république ñu ko des gens par leur comportement di di attaquer cette république là mm-hmm. am couleur mm-hmm. am contingence mm-hmm. am esprit partisan xam nga lañu suñu ba république après ñu après ñu après ku collectivité locale mais élection législative yi jëm nii ñaar la ñuy wane nañ fi lu bëgg ñuy wane nañ ñu mel yaa ngi dégg mhm. mais référendum la na Sénégalais yi xool en âme et conscience est-ce que fii lañ bëgg Sénégal jëm wala fii lañ bëgg Sénégal jëm marché bi tas jeex mhm. kon ànd nga ci seen sortie bi mm-hmm. Mm-hmm.